sûr que politique dugg na ci. parce que politique non xam nga politique aussi. non politique euh, politique non fu mu jaar ci bu may wax acteur politique politique bi may wax mooy politique bu ni ko Abdou Khadre waxee. bu bokkoon ci camp présidentiel bi wala ci Benno Bokk Yaakaar ba tey kon lii du ko ci. am naa am naa am naa ci ci yaakaar ni que. d' accord xëy na parce que xëy na peut bu bokkoon ci camp présidentiel. Mhm. Euh, xëy na koo bañ a dal. Ah. Euh, loolu man franchement du nangu ni que loolu du donné bu essentiel ba nga xam ne mën ko jël en compte. Mhm. Hmm? Khalifa Sall c'est un personnage personnalité politique bi mhm. am na lu mu cër bu mu amoon ci réew mi teg ko ci réew mi euh, am na lu mu bëgg ci réew mi am na lu ko lu mu yéene réew mi wala lu mu yéene boppam ci réew mi euh, xëy na am na ña nga xam ko ko nangul politique aussi nag wax dëgg yàlla bu ñuy def politique du affaire mbiru xale ay enfant de cœur ku jekku sa morom ah, ku jekku sa morom ku jekku sa da ko koy def ah li nga xam ne. loolu xew jamonoy Abdou Diouf xew jamonoy Abdoulaye Wade. dañu foogoon xew nag jamono Abdoulaye Wade jamono Macky Sall xew ci jamono Macky Sall malheureusement. comme wax nga ni moo xew ci jamono Macky différence peut-être suñu génération décision bi ñu mën a am rek mooy. li nga xam ne peut-être li Papa ngeen wax Senghor defoon na ko pare Mamadou Dia. waaw yóbbu ko sànq ko douze douze ans. fukki at ak ñaar tëj ko. man li ma li ma xaw a li ma xaw a jaaxal xaw ma metti en tant ndaw mooy peut-être Macky suñu génération d' ay moo ñu mag fopp mais mën nañ ñoo bokk génération nga mm-hmm. xam jub nañ après indépendance yëpp donc dans l'histoire politique du Sénégal c' première fois loo xam ne Diouf defu ko Wade defu ko jël ñoo xam ne peut être ay adversaire potentiel politique lañ pour présidentielle nga xam duñ bokk par des faits de justice duñ bokk ci ci élection yi loolu guléet la fi wax dëgg yàlla mm-hmm. muy Khalifa Sall muy Karim Wade loolu peut man déception bi am bu guléet Euh, gulet la pour kër nga bañ a bokk euh, gulet la parce que jamono Senghor ay ñu Majhemout Diop yi wala ay candidat yi nga xam ne leen euh, doon na leen topp ñu daw génn réew mi wala yoon aay la dugg ci am na fi li nga wax nag man dinaa ko nangu effectivement naa ko dëgg xëy na am réew day dox xëy na di ëpp di jëm kanam. ci démocratie yi loolu la ñuy ci am réew. loolu wax dëgg yàlla ku nekk di ci bay sawaar. waaye boo dee tax gunéet la fii dinaa ñu dégg. parce que en fait ndaxte Abdou Khad baal na si baal na si lañ doon ci question yi parce que sinon bu ñu ko bëggee aborder noonu nañu ñu ñu paree ci l'affaire Khalifa comme ngeen ko dundee nii xam ngeen kaala bu mat émission. ñu ñëw ci beneen boo xam ni. tam dañ ci gis luñu jaaxal Abdou Khadre ba ñu bëri sax njoxtu ni moom itam politique laal na ci xam naa ne bu duggee ci mbir mi di ngeen ko jombul ngeen am ngeen ko gise muy mbiru Karim Meïssa Wade ku nekk gis na ni am na benn article euh, boo xam ni dañu wax ni bala ngay mën a nekk candidat faaw nga nekk électeur te ñëpp xam nañu du électeur article boobu ñëpp jàpp ni benn nit moo ko tax a jóg pour gàllankoor ko mu nekk candidat ndax yow mën nga ko gis seen la kàkkaariwaat. Abdou Fall xam nga il faut mën a prendre objectif ça loolu pour prouver ko day jafe. Mhm. ne benn nit moo tax ñu def ko il faut pouvoir être en mesure de le prouver loolu man du ma ko mën prouver mais li ñu seetlu effectivement lu bees la ci sart yi. Mhm. ne léegi da ngay nekk am na ndaw lu ci yokku loo xam ne peut être permettre na aujourd'hui Khalifa permettre wul euh, Karim Wade doon candidat d'élection yi donc parce que il n'est pas euh, effectivement. mënul du électeur. parce que amoon na. tey ci carte d'identité mi ngi ci amoon na mën a jaaxal donc aujourd'hui li nga xam ne mooy sàrtu mu bees ni permettre enfin ci parce que c'est le conseil bu mu mën a jiit également. du recevoir nañ dossier. waaw loolu kay li ñu wax suñu xalaat rek. waaw voilà dossier man te dossier wati ñeneen ñi. mais li nga xam mën nañu ko jàpp daal aujourd'hui mhm. muy Ka Karim Wade ak bu Khalifa Sall. man li xaw tey sama mbir ci lépp rek. Mhm. tey sama xel plutôt mooy le premier ministre en personne daf ne woon juróom la doon duñ ko weesu. Mhm. fi mu nii juróom-ñaar ñu nekk ca conseil constitutionnel leer nañ ñëpp ah man de yaakaar naa leer leer na ñun ñun ñëpp ñu fi nekk que Khalifa Sall moom boo def ndànk du bokk Karim Wade du bokk donc ca juróom ñañ waxoon ca lañ nar a jëm. boo jiitee loolu am na yoo xam peut dañ ko war a moytu. kaa Karim si vous parlez. waaw a wax ko tënkee. Mhm. comme du mënta loi bi def na boo il faut nga nekk léegi ku mën a wote pour mën a doon candidat mhm. comme yoonu nee na mënta wote li man a jàpp mooy pour mën a candidat dana jafe lool ci charte réew mi nii actuellement ni ñu ko tëggaate nii récemment tëgg ko tëgg ndax da nga jàpp ni moo rek moo ko tax a jóg loolu laa bëgg ñu def ci ma ni que lu lu loolu lu bees la il faut être électeur et loolu ñu nga boo taarixee histoire code électoral du Sénégal euh, mu ngi ci woon démb bërki démb Euh, kon jàpp nañu lu bees la. non nekkul ci yoon kay. ah ni nekk na ci. Mm-hmm. Euh, dama ni. Mm-hmm. man yoruma code électoral bi nii. Mm-hmm. yoruma mu démb ak mu ci démb. ci sama xam-xam bu gàtt. ah naa ni lu mel noonu amoon na fi. mënumaa taxaw ne la ko waxtu sàngam la fi amoon ak kañ la fi amoon ak lii lu bees la am déet wax dëgg yàlla. nga xam ne aussi damaa bëgg bu may wax nga la nga xam ne moom wóor la bëgguma dogg fii nga lu bees la man lu bees la te lu bees la man maa koy man nangul la réforme ci code électoral yi moom loolu lu ci bees kon man jàpp naa ne li nga wax mën naa la lu bees la waaw maintenant waaw ndax Karim Wade tax mu jóg waaw xëy na moo tax mu jóg xëy na taxul mu jóg waaye nag jàpp nañ ni bu droit la ñuy wax la loi est dañu jàpp ne elle est impersonnelle à portée générale mhm. hmm? kon xëy na mën na laa dal mën na maa dal mën naa dal Karim Wade d'accord loolu la ko kii atte loi loolu lay wax mais mosoo gis loi bañ na xamante ni dañ naan diwa tax mu jóg mhm. xëy na bu fekkee nag tuddewuñ ko dina tax mu mm-hmm. na diw la gën a sànq wala diw la gën a gaañ xooku xëy na jàngir lay doon voilà <laughs> léegi euh, Abdou Khadre mm-hmm. parce que dañ ko condamné moom juróom juróom benni at mu tëdd daanaka ñett yi ñu gracier ko mu dem boobaa léegi ñu ne amel na réew milliards wax yi ñuy dégg nga xam ni président de la république sax wax na ko mooy yoon mi ngi fi contrainte par corps ngi fi loolu naka nga ko déggee euh, ay menaces la wala lan la lan la wuute ak grâce bi nga xam ne am na ko mu war a mën am liberté le cas lan la la inspiré. waaw mooy li ma waxoon sànq rek c'est-à-dire euh, am na de façon insidieuse et claire ñaari candidat yoo xam ne man gëmuma ne danañ bokk parce que on nous a communiqué de façon façons que ñii duñ bokk ci ci jongante bi. Mhm. président de la république nga wax bi mu interview defoon France 24. Euh, junj na ne peut-être nañ xool. nuy euh, nu ñuy wax a ñu war a doxale mais ni yoon tëddee ci réew mi actuellement nii donc ni la demee c'est la mais bu ñu passé élection voilà loolu président moo ko junj je pense que interview bu mu defoon. ñu mu euh, <laughs> daal pas pour mu bañ fee tardé léegi. d'accord téléspectateurs yi. ñu jaar ci yeneen point yi. waaw Karim Wade rek Khalifa Sall duñ bokk ci élection bu bëggee lu lu gàtt sa leer nga bind ko foofu waaw. mais loolu mu bëgg mu gàtt est-ce que gàtt na pour yow ma jàmbal. Euh, mais man bugguma ci doogu daal. Hmm. ah euh, daa bëgg daal ku nekk mu bàyyi ko sa cëram ah. waaw ah, mais nag taskatu xibaar nga a jaaxal man non non dama laaj. Hmm. waaw il faut bu ma ni ku nekk ak cëram parce nga xam nga tey par exemple boo déggee Abdou Khadre waxee mu ni ci lu gàtt. Hmm. Khalifa Sall ak Karim Wade duñu bokk ci waaw kooku naam ma ni conseil moo ko mën a wax. maintenant. ndax Karim Wade ak Khalifa Sall la ñuy wax ni que matal nañ ko pour bokk ci élection yi mat na am matul parce que loo gis boo koy natt da nga koy am fo euh, loo koy natte ah. mooy yoonu Sénégal mm-hmm. yoonu Sénégal par exemple bu dee cas Karim Wade bi nga xam ne moom mm-hmm. dañu pour nga nekk élection président de la République hmm? yoon bu la topp duñ la teg ay daan nga xam ne ni ko mënatoo ci dellu si tey boo jàppee dossier Karim Wade manees naa jàpp ni ko loolu am na ci moom ñu ni la di nga nekk Sénégal dootu am beneen nationalité mm-hmm. boo jëlee kaa Karim Wade am na beneen nationalité bu Sénégal mm-hmm. non man moom quand même yëpp que euh, renoncé na yëpp renoncé nationalité sénégalaise euh, ku jàng loi code civil français renonciation bi da bind ñu def décret du président de la république française accepter sa renonciation nationalité ñu génne ko au journal loolu amagul kon ba léegi waxtu may wax ni loolu amagul. d'accord ñaareel ba même bu amoon loi Sénégal jàpp naa dani ba il faut que renonciation bi sax mu am juróomi at avant yi kon defe naa ni Euh, loolu mën naa jàpp ni que kon. waaw ah. euh, juróomi at yu kay baax na nga dugg ci xool ci noo gën moo gën nga xool ci maandu noonu. Ah, Abdou Khader. Euh, yaa ngi koy dégg nga xam ne moom la ma jàmbaal wax li mu wax boo ko déggee mën nga xam ni bu ñu sukkandikoo ci yoon candidature am mën na nekk lu doy waar mais terewul muy wax day ñëw Sénégal dina ñëw. ñëw boobu muy wax ak yeneen yi ciy dégg que Karim bu nekkul candidat élection du fi am yaa ngi koy dégg lan la mën a jur yow yi. waaw daal gars il faut Karim bi ñu tawee annoncé retour mu yaakaar naa war na mat ñaari at dina demee léegi mhm. juin dina ñëw mars dina ñëw mais kenn gisee ko ba léegi ah. donc man dama yaakaar dañ nekk ci mbirum politique ba léegi nii parce que créer une situation de tension c'est tout à l'avantage de Karim Wade et du PDS mhm. bu fi ñëw fi mu ne nii réew mi dana xaw a jaxasoo ndax ñoom dañ ko ko ci kaso loolu leer nañ ah, ko wax premier wax ko keneen ak wax ko bu ñëwee parce que nee nañ yoon moo moo def dogal lool contrainte par rapport boobu. xam wàccaale maa leen 132 milliards yooyu. c'est bëgg dafa wër say yàlla. donc <laughs> bu est que c'est son intention ñëw. yëf yi jaxasoo élection yi gars yi mere Macky loolu ce sont des faits politiques yoo war nga mën a analyser. est que Karim Wade pare na pour def sacrifice boobu. ñëw delluwaat kaso bi pour am lu mu créé ci dëkk bi parce que moom son intérêt mooy Macky daanu. peut-être que ñu xoolaat ki fiy toog bu fekkee am na kenn fi toog mu xool nu ñuy nu ñu koy seetalee ak yu noonu parce que fii au Sénégal en ku fi dugg mën ngaa def wala nekk aussi mm-hmm. ça sont les faits politiques également mm-hmm. donc parce que suñ as suñ institution yi ni mu tëddee exécutif dafa am doole doole yoo xam ne presque day indiquer hmm. day impulser législative ak ak judiciaire dëgg yàlla loolu moo li fi am hmm. donc man dama yaakaar dañuy politique rek Karim Wade dana ñëw gi mën naa xaar boo xam ba parce que élection yi weer a ci des de d'accord <laughs> Madiambal dina ñëw ak bu ma sukkandikoo ci ci argument yi nga ñu jox euh, mën bu ma fekkee ci loolu laa sukkandiku mën nañ jàpp ni candidature mën na mën na mën na mën na takk suuf hmm. mais ñëw bi nga xam ne mi ngi koy wax ak euh, ak menaces yi nga xam ne waa PDS yi ñu ngi koy def karimiste yi euh, ci élection du fi am bu nekkul candidat loolu lan la mën a jur pour yow. Euh, booy seetlu wax dëgg yàlla menaces yi du lu bees. Mm-hmm. ba ñuy daataa jàpp Karim Wade menacé woon nañ fi ni Karim Wade bu ñu ko jàppee daañu taal dëkk bi. Mm-hmm. que réew mi danañ ko fagaagaal. Mm-hmm. loolu ku nekk dégg na ko. te réewul jàpp nañ fi Karim Wade def na ñetti at kaso bi. ba muy génn du pression wala dañoo waj loxoom président Macky Sall pour mu génn xëy na ba pour mu gracier ko. Mm-hmm. ndax rapport de force bi changé na ba Karim Wade am doole jot ni bu dikkee la mënul woon ba muy daataa dugg kaso mënu ko bu nekk ci biir kaso bi ndax léegi mën na ko bu nekkee bitim réew ba day ñëw yaakaaruma ko mm-hmm. mais nag politique lañu nekk comme ni ko Abdou Khadir wax ku nekk da def loolu ni jàpp nga ni que lii moo lay jural li nga mm-hmm. li ngay wut di jëlee responsabilité am ñëw ñëw gars yi ni ko yow de boo ñëwee dañu fay suñu xaalis cent vingt huit milliards yi nga amel Sénégal mhm. mu ñëw fay ko bu ko neexee nga tax ci biir réew mi fayu ko gaa yi ni ko ciix dugal ci kaso bi bu Karim Wade amee man-man ak doolee kàttan bu toll ni que dina jaxase réew mi ba Macky Sall jël ay bagages am dem lu ko koy tere mais yëngu-yëngu yooyu est-ce que mënul mënul randal élection mënul indi coow ci élection pour yëngu-yëngu li ko li ko soxal mooy élection yi bañ am xam nga dégg ko du benn du ñaar. Mhm. Ablaye Wade wax na ko euh, ay avocat Karim Wade wax nañ ko euh, ay ñoom Oumar Sarr wax nañ ko du benn du ñaar kooku pour Sénégal yëpp ñoom seen objectif mooy élection bañ a am dañ ne bu Karim Wade bokkul élection élection yi du am. waaw est-ce que loolu taxul ñu ñu jëm ci ay ëllëg yu lëndëm ci élection yi pour yow. ah ñaan nañu yàlla xëy na ëllëg gi du lëndëm ndaxte bu ëllëg lëndëmee ko yëg ah ndaxte yaakaaruma ni bu Sénégal amee jafe-jafe xëy na Karim Wade nekk Doha yaakaaruma dina ko dina ko wàññi mm-hmm. ñu des ci biir réew mi na koy gën a yëg. Mm-hmm. waaye kon ñëpp war nañoo mën a fexe ba nga ñaan yàlla ba mu bañ a yëngatu. Mm-hmm. waaye nag loolu responsabilité ñi nga xam ñoo yor nguur gi la bu dee ñoom toog nañu dégg ay nit ñi nga xam ne ñi ngi leen naan danañu jaxase dëkk bi daañu ko taal ñu toog di sàggan ba réew mi jaxase ko wala ñu taal ko kon nota wuñ cër bañ leen jox mhm. tey fii lu fi man di xew ëllëg si biir ci luy jaxase réew mi kenn du dama bett kenn du fi taxaw di kilifa réew mi ni li xew ëllëg si biir fekkee safaan wala bett na ma ndax ñi nga xamee ni ñoo ko damm wax nañ ko mhm. nee nañ fii la ñu jëm lii la bëgg kon nag bu ñu la waxee ni fii la ñu jëm lii la ñu bëgg